di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di leen baalu àq ci tabaski bi ñu jóge di leen baal tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi suivre chaîne bii di lu xew TV di leen wax ngeen gën di continuer di abonné wu di partage vidéo yi ngir gën a mën a yaatal liggéey bi alors tey waa lu xew TV dañ dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo boo xam ne cette fois-ci day concerner benn activité boo xam ne day am pendant les vacances mu doon seen petit gàlle ñu ci bëri xam nañ ko mën naa ne Sénégal yi yëpp sax xam nañ ko parce que doon na loo xam te ne lu siiw la te Sénégal yi bëri tamit bëgg nañ ko mais xamuñu au fond yan gàllankoor la mën a am ci réew mi ak surtout ci jeunesse bi nga xamante ne si ñoom ñu war a doon ëllëg réew mi parce que xale mooy dooni mag ëllëg jeunesse bi nga xamante ni si moo fi nekk moo war a yore réew mi donc jeunesse boobu pour man war nañ leen mën a inculquer yenn valeurs yi mais pas di leen dugal ci ay caaxaan te li ci graaw mooy tey ñi nga xamante ni si ñoo amoon avenir pour mën a bokk ci ñi nga xamante ni si ëllëg mën nañ réussir seen étude ñoon dañuy transformer def leen ay caaxaankat pour man nag les responsabilités son partagées ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ko organiser ñu gën ci ràññee Bouba nduur ak parents yi nga xamante ni si ñooy bàyyi seeni doom ñuy dem di bokk ci lu mel noonu ak yenn organisation yi nga xamante ne war nañ seetu lu mel noonu ñoom ñëpp ku ne am nga ci part de responsabilité tey bu ñu ñëwee ci ñi nga xamante ni ñoo organiser lu mel noonu tey waxuma la xaalis bi nga ciy gañe rek parce que loolu xalaat TV leeral na ci lu bëree bëree bëri ku bëgg a comprendre nu mu demee exactement soo demee ci vidéo xalaat TV di nga ko fa fekk et de passage ñu ngi saluer liggéey bu am bi nga xam ne koy def parce que vidéo yi muy génne vidéo yi am solo la te dañu soxla genre yu mel noonu ci réew mi ñu ñuy leeralal lu bëree bëri loo xam ne umpale nañ ko ak ku ci mel ni aussi Sa Ndiogou parce que seetaan naa benn bi doom aussi wax na ci li nga xamante ni moo am ci seen Petit ak Bouba Ndour mais bu ngeen seetloo tey Bouba Ndour am na doom boo xamante ni ñu ngi koy tuddee Philippe pour pourtant moom il chante bien génn na fi sax benn son mais est-ce gis ngeen ko mu jël ko dugal ko seen Petit Gallé def ko génne mu dem jàngi mu ngi séntu tey ci doomam jooju ëllëg mu nekk benn cadre mën a gérer loo xamante ni si moo ëpp niveau fuuf nekk di way alors pourquoi man parent d'élève bi ma war a mën a nangu sama doom mu dugal ko ci école yàlla may ko xel muy jàng di am note yu baax benn groupe jóge fële bëgg ko jël dugal ko ci loo xamante ni si ay caaxaan la parce que bu ngeen seetloo ni nga xamante ni moom la ñuy tànnee ñiy dem seen petit gàlle d'abord il faut que ñu am note yu baax seen école donc déjà xam nga ñi nga xamante ni si seen mairie école lañ bokk ñooñu ay élèves lañ te ñooñu mën nañu am yaakaar ci ñoom que ni ëllëg mën nañ dem ba bokk ci ñi nga xamante ne ñoo war a jiitee réew mi ñooñu nag la ñuy jël transformer leen def leen ay waykat ay fecckat ay caaxaankat xëy na ba ñu nee caaxaankat am na ci ñoo xamante ni moo bi mën na rëy ci ñoom mais dañuy jël exemple ku ci mel ni maam Diarra bi nga xamante ni léegi mi ngi ci benn groupe de danse déjà groupe boobu rek. comme ni ko xalaat TV waxee boo duggee seen profil YouTube da ngay gis ni ñoom seen logo dafa doon loo xamante ni si nii drapeau góor jigéen la donc groupe boobu noonu dafa bokk ci loo xamante ni si nii day dooleel góor jigéen alors doomu jullit nan la war a mën a bokk ci groupe bu mel noonu xëy na bu ñuy wax am na ñenn ñoo xam dañuy jàpp ni iñaan la wala soxor moo tax ñuy wax mais dafa doon loo xamante ni suñuy valeur moom moo ko nanguwut parce que am na benn interview bu mu def ak benn journaliste. muy wax que ni musique bi lu mu laaj da koy def te wane na ko parce que am na benn clip bu mu bokk boo xamante ni si ni daf ci solo en mode bikini maanaam deux pièces ci koo xamante ni si tey maam jaara nga tudd doon doomi jullit nga sol deux pièces clip boo xamante ni ñëpp ci teg seen bët loolu dafa ruslu dafa ñaawlu te produit boobu fan la jóge seen petit gàlle parce que seen petit gàlle tey moo ko formé ba mu agsi fii mu agsi et tamit am na beneen phénomène boo xam ni dafa am ci biir tey xale yi nga xamante ni si ñoom la ñu yóbbu seen petit gàlle ñu dem ba nga xamante ni dañuy bokk ci ñi gën a sori nit ñi di leen ràññee amaana sax ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ko jël bu ñu génnee dañuy jàpp seen bopp star dañuy dem ba seen dund bi ñu amoon avant da changé lu bari ñu commencé yëg seen bopp ba da leen di pousser à ce ñuy def yoo xamante ni sax waruñu koo def. e su ngeen liiree commentaire bii di affiché di ngeen gis li may wax. kii dafay témoigner que ni moom ci boppam moo gis benn xale boo xam ne dafa gagné concours Sen Petit Gallé bi dëkk Saint-Louis di wax ni bu njëkk il était très discret nekk sérieux mais après bi mu gagné concours bi dafa jàpp boppam benn star maanaam commencé di ñoo di nit ñi benn vie boo xamante ni si moom pour moom mi ngi ci kaw xam ngeen tamit am na ci yenn xale yu jigéen yoo xam ne ku siiw la ñuy bañ. comme jël na seen petit gaale commencé ñoo di star xam naa peut-être jigéen ñi topp ko et ci noonu mu biiral ci benn xale bu jigéen et même ci commentaire bi waa ji mi ngi wax ni kooku dafay tux yàmba et dàq nañ ko deux fois seen école et bu ñu delloo ci wax yi ñu waxoon ci ginnaaw mooy ñi nga xamante ni si ñu ngi tànn di leen yóbbu seen petit ci ñi dàq jàng seen école la ñuy bokk xool leen ki nga xamante ni ci ñi dàqoon a jàng seen école la bokk dem ba tey muy tux yàmba bañ koy dàq école. alors gis ngeen gravité bi nga xamante ne moo am ci seen petit donc pour ñi nga xam ne mënuñoo liir commentaire bi loolu la ci wax te kii nee na li muy témoigner dafa doon loo xamante te ne moo ci teg bëtam alors lii bépp parent bu ko dégg war nga xam ne tey jii nii seen petit du loo xamante ni si war nga permettre sa doom mu di ca dem rawatina sa doom bi nga xamante ni si ni dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo dàq jàng seen école ñu war ko canaliser. war ko wan yoon bu baax bi nga xamante ne bu ci jaaree dina mën a bokk ci ëllëg cadre yi nga xamante ne ñooy jiite réew mi mais pas assez ko ñu koy transformer muy nekk caaxaankat et bu ngeen seetloo la plupart ci ñi nga xamante ni si ñooy way seen niveau d'étude soriwul ñu jël exemple ci Youssou Ndour mi nga xamante ne si nee nañ moom mooy le roi du mbalax ñii ñi ngi naan amul sax diplôme tey ko waxoon noonu peut-être njàngam soriwul dem na tey dugg ci musique yàlla dimbali ko ci mu am ci wërsëg bokkut ak ki nga xamante ne si nii am na chance yu ñu jël ko di ko détourner di ko yóbbu pour muy defi musique te tey xale yi xamuñu dara ni ñuy gisee nii seen Petit Gallé ni muy doxee dañuy am envie bëgg ci bokk parce que xamuñu exactement lan moo nekk ci biir au fond donc yow parent bi nga xamante ni responsabilité xale bi ci yow la nekk yow moom la ñuy waxal bul nangu sa doom di dugg ci yoo xamante ni ëllëg mën na ko détruire donc nit ñi vidéo yi ñuy def. c'est juste pour leeral ñi nga xamante ni si gisewuñu woon noonu mbir mi ñu mën a comprendre exactement tey li nga xamante ni mooy am fan la mën a yóbbu suñu société parce que du ngeen xoolee ci xale yi nga xamante ni ñoo fay dem ku ci génn tey même boo jëlul final bi tamit da ngay jàpp ni yow star nga nit ñi xam nañ la sa mode de vie day changer et tout donc ñooñu gëdd bi ñu joxoon jàng mi dëgg dëgg dëgg dootuñu ko joxati. parce que bu ñu ñëwaatee ci interview bi nga xamante ni si ni maam Diarra defoon na ko ak journaliste boobu noonu am na ci benn moment muy wax que ni benn jour la woon dañu waroon a jàngi après dañ leen a woo téléphone ni leen dañu waroon a jël jet privé dem ci Sarcé Saint-Louis noonu lañu bàyyee seen njàng mi foofu noonu dem nekk fa def shooting et cetera et tout donc ñaata fan la ñu tardé ci seen njàng. alors il est temps ñu xool bu baax a baax fan la ñuy dugal sunu doom yi ñun nag sénégalais dañu taamu lu jóg rek ñu jëlandoo ko ak doole te lu ñu xool lan au fond lan moo nekk ci biir parce que ñi koy organiser ñoom ñu ngi ciy gagné seen xaalis te ñi ngi yàq suñu valeur suñuy doom ak suñuy ràq donc ñun suñu wàllu bopp ñoo mën a xeex loolu en commençant par parent bi nga xamante ni si moo yor doomam dugal ko ci école yàlla wërtëgal ko mu am xel mu neex di am ay not yu baax nga bañ koo bàyyi muy bokk ci loo xam ne mën na ko yàqal njàngam ndax bu concentré woo ci njàngam góorgóorlu mën na bokk ci cadre yi nga xam ne ëllëg mën nañ jiite réew mi te Sénégal dafa soxla ñu mel noonu ñi nga xam ni ëllëg mën nañ jiite réew mi mën ko teg ci conditions yu baax. donc tey loolu moo nekkoon suñu vidéo wax ji su fekkente ni am na dara lu ci dëng rek ngeen xam ni ci nit kiy wax la parce que doomu aadama matul mais bu amee lu jub rek ngeen xam ni ndimbalu borom bi la. di dellu di encore une fois di tuub di jégalu képp koo xam ne li ñu wax am na dara lu la ci laal ñu ngi tuub bu baax di jégalu.